Ecotra nek entreprise bo xamantene bi ci bâtiment ak travaux publics lay liguey bëgg positionner ci entreprise yi ñu gën ragné ci Sénégal gën ko ragné ci Afrique lolu mo waral lepp lu mo mënon mu def ko pour am matériel bi bi war am personnel bi war li mu jënd ci ay machine ëpp na téméré machine li mu yor ci ay nit ñuy liggéey ak moom ëpp nañ juróom benni téeméeri nit loolu lépp pour tabax Sénégal moo tax loolu moo ñu boole ak pôle urbain de Diamniadio bi nga xam ne assainissement bi ak VRD ñoo ko yore moo ñu boole ak Ageroute ba xamante ne tali yu bëri ci réew mi ñun ñoo ko yore boole ñu ak sayet ba tax aménagement yu bëri ci dëkk bi ñun ñoo ko yore waaye li muy liggéey lépp li ko ci gën a ñor li ko ci gën a ñor moom Abdoulaye Sylla mooy Touba Liko gëna ñor moy seigne Touba lolu motax at mu jot ren di at ñu ñëw fi na nañu bayyi lepp lu ñuy liggéey lu ñu am ci matériel nañ ko indi Touba taxaw ci liggéeyu Touba fexé ba Touba lu fi nekk te waru fi ne ci ñak set ci ndox muy ta ci tal yu baxul nañu ko régler ba bala bëssu magal gi lepp nekk ci yoon lolu lañu sas di yeggal bi

dëkk yi wër Touba yoon ya fa jëm yëpp danañ ci taxaw ba dem bi ak dikk bi du am benn gàllankoor ci biir màggal gi fu ndox taa ci dëkk bi dana nekk suñu yitte fu talit dagg ci dëkk bi dana nekk suñu yitte loolu lépp dinañ ci taxaw bu sobee suñu borom di ñaan sëñ bi mu dolli ñu ñaanal ba lii ñu samp ngir bëggal ko lu ko lu lu lu dëppoo ak bëgg-bëggam bi mu bëgg defal sëñ Touba yàlla jàppale ñu ba ñu mën ko defar ni mu ko bëggee yàlla na yàlla jàppale ñu. di yóbbante sëñ Cheikh ne ko Ablaye Sylla jëlaat na boppam dénk ko sëñ Mountakha jëlaat na boppam dénk ko sëñ tuba ci leen di delloo nuyoo Cheikh Mountakha. ci laa leen di delloo nuyoo Serigne Mountakha. ñu ngi leen di nuyu yéen ñi fi nekk ñëpp. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi fi nekk ñëpp. kilifa gi ngeen jógee muy Ablaye Sylla. ci seen kilifa gi ngeen bàyyi ko muy Ablaye lay Serigne mi ngi koy sant di ko gërëm. Serigne bi mi ngi koy sant di ko gërëm. di hamal xamal ne mi ngi koy nangul lim ko wax lépp di ko ko jàppal. di ko xamal ne mi ngi koy lim ko wax lépp di ko jàppal. mooy doon waajuram. mooy doon waajuram. doon ab sëriñam. doon ab sëriñam. dox diggam ak Serigne Touba. dox diggam ak Serigne Touba. di seereel liggéeyam bii Serigne Touba. di seereel liggéeyam bii Serigne Touba. liggéey bi nag li nga wax alfa. liggéey bi li nga wax alfa. ñeenti at yi ngeen fi ñëw yëpp. ñeenti at yi ngeen fi ñëw yëpp. man ngeen ko man ngeen ko ñu dénk ma. ñu dénk ma. ma jiite mbooloo mi nga xam ne. ma jiite mbooloo mi nga xam ne. dañuy setal dëkk bi. dañuy setal dëkk bi. ak di ko defar. ak di ko defar. di ko wajale màggalug Serigne Touba gi. di ko wajale màggalug Serigne Touba gi. ñeenti at yooyu nga wax. ñeenti at yooyu nga wax. lépp noo andi matériel bépp. andi matériel bépp. li ñu bëggoon a def lépp. li ñu bëggoon a def lépp. ngeen jàppale ñu. ngeen jàppale ngeen nu ci. jàppale ngeen nu ci. dañ am ci résultat bu rëy. ba ñu am ci résultat bu rëy. bu rafet. bu rafet. te loolu. te loolu. Pastef foofu Ablaye Sylla la. Pastef foofu Ablaye Sylla la. ak yitteem. ak yitteem. ndax doomi dëkk bi la. ndax doomi dëkk bi la. taalibeeb Serigne Touba la. taalibeeb Serigne Touba la. te booba it lañ ma waxoon yóbbanteem. te booba it lañ ma waxoon yóbbanteem. mu ne fas na yéene feeg mi ngi fi. mu ne fas na yéene feeg mi ngi fi. Ecotra di dox. Ecotra di dox. ñuy jàpp ci màggal gi. ñuy jàpp ci màggal gi. kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi. kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi. ak personnel bi yëpp. ak personnel bi yëpp. ak ak ak jëmmi entreprise bi ci boppam. ak jëmmi entreprise bi ci boppam. yàlla defal leen barke. yàlla defal leen barke. loolu tax na na mu ko waxee woon. loolu tax na nam ko waxee woon. at mu nekk maa ngi koy gis. at mu nekk maa ngi koy gis. ba ren rek. ba ren rek. yeex na maa yóbbante ci moom. yeex na maa yóbbante ci moom. di ko wax liggéey bi. di ko wax liggéey bi. waaye kama yóbbante woon. waaye kama yóbbante woon. loolu la ko tontu. loolu la ko tontu. ne ko la ma jaayante woon maa nga ca. ne la ma jaayante woon maa nga ca. liggéey bi luñ ci daan def. liggéey bi luñ ci daan def. day yokku. day yokku. waaye du wàññi waaye du wàññi gis naa ne yokku na itam. gis naa ne yokku na itam. biñ ñëwee sama xel dal na lool. biñ ñëwee sama xel dal na lool.